mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV mbokk yi le monument de Thiaroye Khadim Ndiaye moom la ñu fekk si war a séq ak moom waxtaan wi yaatu combat Boy Niang ak Balla Gaye numéro 2 ku nekk mi ngi ciy wax diwoy daan diwoy daan mu ne ma nañ def très attention ndax làmb ji am na ci mbër moo xamante fi mu toll ci doole ak li ko làmb ci jaral est-ce que jaral na ko meneen mbër mi dama lay bàyyi nga nuyu ak wi ñu soog a waxtaanee li nga xamante ne mooy combat bi parce que làmb yegsi na. jërëjëf dégg daal ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi. Mhm. sant suñu ñaari waajur sant sëñ Mountakha Xaadimu Rasuul. Mhm. Mbàkke Balaay si yàlla na fi yàgg te wér. Mhm. di sant sëñ Modou Habib. yàlla yàggal ko fi loolu te wér xalifa Daaru Rahmaan. sëñ Cheikh Mbàkke Daaru Rahmaan yàlla na yàlla yokk leeram taas ci barkeem. di nuyu yëpp. rawatina njabootu Serigne Touba. di dama am contentement. di nuyu Madoune. le grand reporter nga xam ne maa moom démb la waaw boobu sax siit yi amul. waaw mu nekk nit ku baax. te bu ma dékkee micro pour laaj ma ci combat dinaa ci sawar. mais nag may may rek ma gërëm ñaari nit wala ñett. waaw dama doon maye sama doom. waaw xam nga muy femme muy jaar buso am jaar buso. moo ci ñaari yoon alxuraan. jëkkër jëkkëram di i Ibagé waaw. ma jël cër bi cëre la ko Pa Abdou Fall production. mu ñëw fa ànd ak Matar Ba mel ni indi fa orchestre indi fa loo xamante ni waa kër sëriñ Touba ki fa nekkal Serigne Touba ci ci caaru géej. nee na ba kër Serigne Touba taxawee ba léegi. Uh-huh. c'est la première fois muy ministre dugg fi. Uh-huh. nekk ci nguur muy Matar Ba. mais xanaa ñëwoon na. kenn ñooy gis ñoo ñoo Matar Ba daal ñëw nañ sagal ma Pape Abdou Fall mi muk bàyyee bàyyi lay indi na mataar Ba ñu ñëw sagal ma ñoom Issa Pouye ñëw nañ. Pape Mayel ñëwul. ñoom Baye Mandione ñëw nañ ñoom ñi président CNG ñëw na wax dëgg yàlla Matar Ba. deseelatuma ko dara ci deseelatuma dara ci àdduna samay jëmm mm-hmm. ak sama njaboot ci wàllu politique yëbal naa ko ma tarba ah. ci barke Seexul Xadim laa lay giñee billaahi wallaahi muy nit ku baax nag nit ku am ngor mm-hmm. di gën a wàcc ba dogal bi wàccee ñëw ci moom ba léegi mm-hmm. sama tekk doom gi la génne première sortie pour wax nee na waaye nag day gor mataar day gor léegi Matar dootul ay ministre sport ak ay ministre ay ministre moo boole xaadim Matar direct ñu boole. lu ko laal laal ma. Pa Abdou Fall lu ko xuri xuri ma. Pa Abdou Fall c'est mon frère. ñam Henri ñam Mara ñoom ñëpp ñëw taxaw. defal ma defal ma teraanga jooju jël seen temps toog ci kër ga. teral waa caari géwéli caari géej yëpp. waaye ku ñii luñ ma deseelati. gisuma ko. lu ñu ma a seelati. mais maître sa nit la woon. samay nit lañ man sama non sama nit la am. sama doom bu ma ko juree tudde ko maam jaar Diarra Bousso yaay Serigne Touba muy mu yaay baaye man mii ma man tey moom mën naa ni sama doom jooju mooy sama yaay ndax maam jaar Diarra Bousso laa ko tudde fonk ko lool nag. mu jàngar ron wàcc. ma yëgal ko àdduna bi yëpp. mais sa sa bés àdduna tey Matar bu ko neexoon joxe enveloppe. dëgg yabale. Mm-hmm. bàyyi Pape Abdou Fall mu ñëw. Pape Abdou Fall bu ko neexoon. yebal ñoom aar yi wala maara. mais dañu xam dimension bi ma leen jox ñu delloo ma ko. te dama leen koy delloo ba koroog may sàngoo suuf nit du ma gën a gore. gis nga aw ma dara taxuma dara mais ku ma yëg ma yëg la ku ma yëgul faalewu ma la man nu laay dundee sama àdduna xam nga. nit ko petit pois kenn du ko lekk. ko nambe des ko corne ba pare ñëw indi yoo xamante ni. la ko wax quoi. joxe teraanga yoo xamante ni naa takk sama ñeenti doom yoo xamante ni moo leen doon maye tey ñooñu mën nañ leen teraanga ji mën leen takk. moom la Pape Abdou Fall def. Pape Abdou Fall taalibe Cheikh na Cheikh Saad bu la man may taalibe Serigne Touba. Matar Ba ñëpp di ma laaj ndax Matar Ba ak Pape Abdou Fall luñ bokk ndax seen nuroo yàlla bu seytaane mën ci yéen dara. yow Pape Abdou Fall toppoo Matar Ba. ngir ndombal tànk de. Pape Abdou Fall toppoo Matar Ba ngir mooy directeur Fiara. yàlla na leen yàlla jàppale. ci barke Serigne Touba yàlla miy jàppale jàmm. yàlla na leen yàlla jàppale Henri Mara yàlla na leen yàlla taxaw kontaan naa ci yéen. sa ñaari muy Balla Gaye ak Boy Niang dégg naa nag kenn ku nekk euh, jël nga oto jégg frontière làmb ji da nga yaakaar ne mystique moo koy daan wala doole. waaw xam nga làmb ji làmb tension la. Ah. nañu waxante dëgg rek làmb tension la dëgg rek. Mm-hmm. xam nga. Mm-hmm. bu nee tey combat jànq. Mm-hmm. tey Balla Gaye ñu ñu bañ ko wax ah. il ñu wax ko ah. revanche lay bëre ah. ah ku daan sa rakk joo bokkal ndey baay sooy bëre kaka daan looy bëre. est-ce que gën ta bi ci Balla Gaye lay ne. tey bu Balla Gaye booy bi su ko neexee ne un un ah mais Balla Gaye déggoo li supporters yi wax mhm. nee na ñoom ama seen mi ñu war a jël sax mu daan leen moo gën booy ñaa daan leen kon nga xam ni booy ñaa nag su demee tey bay ñëw jël Balla Gaye pour am ci defet mhm. su duggee këram waa kër gi dañ ko war a tër reen di ndax fa Balla tolloon tey mhm. ba muy bëri Yékini tey fi la booy ñaa toll xam nga kon enjeu bi tamit lu mu nekk ci Balla Gaye ci boo ñaa lay ne booy a ñëw dëkkal boppam bàyyi bakkanam buntu këram ñëw ne Balla Gaye ndam rek baa dee. lu ko mën a may lu ne la ko mën a may lu ne ndax gi dañuy wax la mu waxoon defoon na ko. te lamb ji attention de ñaari mbër yëpp seeni ginnaaw. Mhm. guddi yi may wax ak yow. Mhm. am na fi ñoo xam ne sax jël nañ vol dem. génn dëkk bi génn dëkk bi fii. kon nga xam ne lamb bi la boo xamante ni. te ba pare mën naa la ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk ni ngay bëre. Mhm. Balla Gaye su arbitre fër da lay daw gëdd pour nga daw song ko mu dóor la épercule mm-hmm. soo sigee mu daw paquetal ramassé la ku ne xam ne noonu lay bëree wala nga daw ci flanc yi mu jàpp sa wet mu dóor la mbot booy ñaa day xeex day mel ni ku lay ragal di arrière mm-hmm. nga yaakaar da laa tàppat fekk mi ngi lay liir mm-hmm. soo ne bëxër ñet mu jàpp la daw tegal la seize kon ñaari ndaanaan yi bëri xam nga ah. kon ñaari ndaanaan yi bëri ku ci am looy calcul ci bi da nga koy ñàkk combat day toll foo xamante ni technique zéro calcul zéro. Mhm. wàcc toog say tànk xuus sa mbër yan ko lu mu attanoo mooy mooy tax nga gagné combat bi. mais làmb bu fekkee ne eh, bagarre bi dafa déclenché. Mhm. kan nga jàpp ne moo ëpp avantage. Balla Gaye ak Boy Niang a a xeex nag. c'est que mhm. làmb ah, ji dimatee day laaw. mais jam moo gën a leer laaw la jam moo gën a leer. ndax jam di nga xool fi ngay dóor. mais laaw moom day day sori. te boo dee kuy jam balaa ngay jël laaw mën na dugal ñaari coup. wala mu bëtt la sax. Balla est que warul ñëw teg bëre. nit ñooy wax nii rek mais xam naa ni combat bi muy gën a respecté bu arbitre ne fër dina serein ci combat bi te di ngeen a xaadim waxoon na ma ko arbitre duna fër mu dal ci kaw bal booy ñaaw jàppal li ma la wax bala bala du bëree noonu bala il faut que dala daan may ay minutes soo ñëwut mu ñëw damaa xamul ndax minutes yooyu ma ko may booy ñaaw ndax booy ñaaw dina ko fa xaar booy ñaaw na la koy ñëw non ni ma ko gisee ak ni ma gisee mu yokk maas xam nga. Mm-hmm. di bëri koo xamante ni moo ko féete mag. Mm-hmm. war na tey mën a ñëw indi application bu mat sëkk ci làmb ji. agressé mm-hmm. xam nga. man ba may bëri ak baabooy loolu laa wax day làmb day toll foo xamante ni. làmb ji dañ ne la force qui élimine la technique. day toll foo xam ne sa force ngay indi nag. xam nga ndax coow li bëri na ci Boy Niang coow li bëri na ci Balla. kon Balla nag. def na li war a def ci làmb ba wax dëgg yàlla. Mhm. tey maa daan Balla rek. Mhm. honneur bu rëy la. Mhm. loolu bu ko Boy Niang xamee mu xam ko. mais ndax Balla dina ko may Boy Niang daan ko. daan rek daan mag catastrophe la Géejawaay. nañ waxante dëgg nag bàyyi leen xel ci loolu. moo tax waa Géejawaay bu ñu toogee ci nen doo toog duñ toog du toj de. nañ waxante dëgg gisatuma seen staff mais kenn nelawatul. xam nga lu tax enjeu làmb ji moo am solo. fi mu ne nii lu dul le premier janvier am na ñoo xam dagg nañ seen billet bu yàgg man damaa waaru sax. yow ni nga waxee dafa mel ne kon Sa Thiès moo teg pression Balla Gaye parce que waru woon am défaite ci combat bi. bien sûr ba Sa Thiès dafa entraîné ba mel ni ko neex. xam nga. arbitre ñoom muy agressé Boy Niang. Boy Niang daw xeex ak moom xam nga daw xeex ak moom daan ko jël bu kenn mas sa wax. da koo daan jël bu leen nañ wër bi gang la ko daan nañ waxante dëgg. tey ngay bëreeg magam muy daanaan kuddu fadri nga xam ni mooy yaakaari géejawaay tey bu booy bëggee bëre ba bëgg dégg ay roi ci moom lañu roy à l'âge de vingt cinq ans nga jël roi tey su may bëre yow damay teg fële technique force laa indi yan la loo attanul ndax Balla ko ko deful noonu mënoo ko daan nañ waxante dëgg rek daanaan la nag daanaan loo ko bañ bañ di nga xam ne kii daanaan la mmh. mais guddi yi ma teel guddi yi ñu toll mmh. gisuma Balla mais nelawatuñ ba yandoor de gisuma waa Géejawaay tamit mais nelawatuñ waa Pikine yi nelawatuñ ba yandoor de ndax enjeu combat bi moo toll noonu xam nga enjeu enjeu la am il faut que nit ñi xam loolu. supporters yi sax mënatuñoo wax fi mu ne nii. gisal tipto xoolal si tipto bi waa gars yi sax waxatuñ. nañ waxante dëgg enjeu la am tey waa géej Géejawaay ñoom seen pression ni ama see booy bi ne. damaa voyagé te booy bi kenn xamul fu mu ne. daf loolu. te génnul fii loolu pression la def ci ñoom. xam nga moo tax lamb il faut nga doon ak kañ bëri pax. lamb nan koy def. lamb il faut nga doon kañ bëri pax. lu ko mooy da ngay yem jàpp. kañ kañ kañu lu pax day neex a jàpp de. mais promoteur bi tey jàpp naa ne lamb ji war na cee gën a yokk métuwaayam ci wàllum sécurité ndax combat bi fi muy amee. diggante Pikine la ak Géejawaay. am na yenn sëriñ si nañ bàyyi li ñuy wax. fen baaxul dañ dañuy fen man feebar fa Gaston man maa ko njëkkee daal ne promoteur bi feebar ba ñu yóbbu ko France yàlla na ko yàlla may wér ci la ñuy commencé teg seen i wér di naan promoteur bi daa feebar di fen dañuy fen rek eh, man maa ko waxoon. Ah. ñi koy wax ñëpp dañuy fen léegi nañ wax Gaston fan la nekk ci fara France nañ wax man hôpital grave loolu baaxul ko man maa njëkkoon a génn wax ne promoteur bi daf feebar dama ne rek promoteur bi feebar dem France yàlla na ko yàlla may wér ci lañ koppi nag coupe du monde baa ngi ni fen yiñ fen tooyul xib tooyul yi ñuy fen nañ ba nañ mel ni sëñ Xaadim ak sëñ Cissé ah nañ mel ni ñooñu mais ñoom nag koo ci dugaloo xalwa koo ci dugaloo xalwa ay ginaar ay xol lay ree fanaan ak maam ay reer ak ginaar. na ñu mën a ñaan am na nag am na ñu mën a ñaan mais ñooñu duñ génn di wax naan France bii France nangam. waaw yaa dégg ñoon duñ def di wax ñooñu xam naa ne duñ génn di wax a ñaan waaw ñoon doo dégg ñu génn di wax mais am na ci ñoo xamante ni naan damay Matar soxna ku mën a ñaan ñu ngi mën a ñaan sax bëri nak ñu nekk di lim oo ay jinne mais bu ab xaj duggee seen kër barki Serigne Fallou Mbacké seen ronal ga leen gis mais li ma la wax jinne mais bu ab xaj duggee ne moow seen ronal ga leen gis billahi dañoo xamul luy jinne ñi ñi yor jinne ñun xam nañ leen mais di génn ci tiktok bi di wax lu ne nga dugg ci lu na ah, li nekk nga wax ci mara yi ci tiktok bi ngay waxal ñooñu dama bëgg ñu bàyyi li ñuy def ñu ngi nax nit ñi xam nga di ndax nit ñi am na ci sëriñ yoo xamante ni ay internationaux. yu nekk fii ci réew mi. Mhm. ñoom la waa France joxoon cent millions ñu jox sekk sëriñ ku ne 100 pour coupe du monde bi. ci kii waaw kon yooyu ñaaw na nañ waxante dëgg yooyu ñaaw na. nañ waxante dëgg yi ñaaw na mais mais dégg daaj. lamb ji lamb ji promoteur yëpp yàlla na yàlla may jàmm. dama dama gis ñaari lamb ngi ni ay ñetti lamb ay tension. Mhm. ana sa hmm. lamb jooju se jar na àdduna bàyyi ko xel de. Eh, lamb la lamb la wallaay wallaay. Zerko ne nii kenn kenn gisatul Ada ne. dañu waroon def jàkkaarloo. Hmm. Zerko voyage. Ada Fass ne daw. kon Ada Fass ñeme na combat bi te booy bi man enjeu bi Ada Fass am ci diggante deux ans yi. man yéem na ma quoi. Ada Fass booy bu courageux la. te digg diggante Fass Médina. Mhm. mënuñu ñàkk mbër. te gis naa ni am nañ mbër muy Ada Fass mi ngi bëri nag ku doy waar muy kan Zarko. Pa Abdou Fall tegg ko. ànd mm. ceeg doomu ndeyam Fallou Ndiaye. Mhm. moo lay wan ni lamb jooju tamit enjeu la. Mhm. mais bul fàtte tamit. Pape Abdou xamul lim tëgg dimension bi sax xamagu ko xam nga li may li may li may wax. Mhm. lambu Balla Gaye ak lambu Ada Fass ban mooy gën a fees nga yaakaar. ah lambu la de. ah li may wax rek supporter yi nañ ànd ak seen xel. Mhm. Ada Fass champion la garmi la. Zerko champion la garmi la. Mhm. ñoom ñaar ku nekk mën nga daan sa morom. mais lamb du xët xët. ku am champion bu mel ni Ada Fass. tey nga dégg woy wi ko Kéba way Ada Fass bi xam man man daal booy bi génn dugg bi Modou Lo di rampe. la ma la ma la ma aada la ma aada faas jox te gabir bu Modou loo yoroon bi muy rampe moom la aada faas di yor di rampe. yow Modou Lo 2017 2018 la lay jox. mu ngoog voilà mu ngi may jox te nag. dama dafa aada faas dafa jar a bàyyi xel. ndax Zarko egg na ba pare. tey ku ñëw làmb ja tey mënoo xam ni. kii ngay jox favori ndax mu ñu dee jox favori Zarko lañ ko war a ndax moo ko jiit ci làmb mais tey kenn mënut a joxe favori ci Ada Fass ak Zarko ndax Ada dafa def ay preuve. mais

nañu waxante dëgg ay arafas ay boy town lay àndal waa Medina ay boy town fa la roi di mbalax dëkk nekk war a nekk boy town war a joxe bon exemple ñii dëkk fa ñii dëkk Grand Yoff war a joxe bon exemple mais ñu ñëw foofu di xeex bay sonal policiers yi il faut ñu respecte policiers yi policiers yi suñu kaaraange la ñuy def ñun mbëri ñun la ñuy dimbale su policier amuloon woon làmb du am xam kon ñoom it bu ñu bàyyee seen lépp xoolal ñun la ñuy fay ay millions policiers yi fayeekuñ million cinq cent mille sax fayeekuñ ko te xool li ñuy sonne il faut que ñu delloo service d'ordre ñu moom jox leen cër nga ca ngalaama service ñu jar remercier bu dul ñoom bu dul ñoom ci réew mi kon mu ñaaw service d'ordre yi policier gendarmerie militaire ñoom ñëpp man xaarim ci turu mbër yi mbër mu leen tooñ dafa ñàkk jom mais yéen ñuy dimbale mais loolu bëgguma ko rafetlu ma ko daal xam nga di ñaanal tamit makkan ci bésam bi mu jëm yàlla na ko yàlla defal jàmm Pape Abdou Fall bésam bii mu jëm nga xam ne ñu koy préparé ci bëgguma wax drapeau bi ki kiñ ko tuddee de. mais ku rëy lañ ko tuddee. koo xamante ni bu jógee làmb yëpp jóg. tur barki si tur bi nag génnagut. waaye bu jógee. ah. ah ah, ah, ah. bi. Hmm. sëñ bi ma ni tur bu jógee. àdduna day toj. si xarit te nga tëj parce que.